fàttaliku mbooleem taskatu xabaar yi nga xam ci Rewmi Quotidien ñuy rek wéy di ji séq ba ñu ko jóom dëgg-dëgg du fi nekk ngir bëgg yokk doole kenn néewal doole kenn wala sax ngir bëgg fa yàq deru kenn te fi mu teg tànkam moom ba ñu dana wéy dafa gën a teg tànkam mooy l'équilibre di yemale di wéy di te ji séq lu jëm ci dixième anniversaire bu yéenekaay di lu jëm ci wàllu koom ak wàllu koppar ki ko teewaloon directeur du budget moom Moustapha Ba gannaaw bu mu ñëwaatee ci Amadou mu jàpp ne dëgg-dëgg nag def ko am de l'année 2018 gannaaw jigi nga xam ne def na ko ci wàllu koom gi ci réewu Sénégal jële budget bi ci 3000 milliards ba 4000 milliards ci jamono jooju la Rewmi Quotidien Amadou Ba mi jëriñ ju ñu dénk lépp lu jëm ci wàllu bi nga xam ne bi Rewmi Quotidien moo ko ko def moom ma ngay wéy di opposition bu Sénégal jamono ji xam ne waxtaan ak nekk ci internet bi mu leen may ndam ci élection présidentielle yu 2019 dóor nañu seen loxo ci ëkk di def ñaar fan ak benn Rewmi Quotidien juróomi candidat yi xam ne ñoom ñoo samp seen ngir waxtaan ak askan wi yegge leen seen mébét ci réewu Sénégal ngir askanu sunu gàll mën leen a bàyyi xel Rewmi Quotidien ñëwaat ci juróomi candidat yooyu li kan dëgg-dëgg moo gën ci réewu Sénégal yi ni kaay bi tamit ci bëccëgu démb geeg juróomi candidat yi xam ne samp élection présidentielle yu ñaar fukki fan ñeent ci weeru février 2019 juróomi candidat yi fi ñu toll ni kenn ku nekk ni démb yaa ngi woon ci benn gox las yéen kay ne nekkoon ca diwaan bu Touba moom ni démb mooy Macky njiital coalition Benno Bokk Yaakaar moom Macky ne fi ñu toll ni candidat yi nga xam ne ñoo samp seen dënd ñoom ñëpp dana jar seen kaw ca diwaan bu Touba boobu lay Rewmi Quotidien ne xalif général des Mourides Serigne Mountakha Bassirou digg yooyu nga xam ne juróomi candidat kenn ku nekk am na lu mu diggee Macky digg aéroport waa Touba Sonko digg ne bés bu falo dana wàññi lempo bi professeur El Hadji Issa digg ne bés bu falo dana fi jëlee caisse noire Idrissa Seck moom ne Macky Sall fi nar a nekk président bi nga xam ne bi benn mandat dong lay def maître ma dikkee ñang ca diwaan bu Touba ne bu ko neexoon sax mu dakkal campagne ndax day gagné Macky moom Macky Sall jamono jooju moom waa a rumbux doon bu Thiès sa Ousmane Sonko moom itam mokkal na rumbux université Anta Diop bu Ndakaaru professeur El Issa Sall njiital PUR moom itam mokkal rumbux ni ki démb banlieue bu Ndakaaru source à dil ci mobilisation bi xam ne bi kenn ku nekk yaa ngi koy jaay sa morom moo taxin Walf Quotidien ne campagne élection door nañ ko ni ki ñaar fukki fan ak benn yoo xam ni juróomi kandaay kenn ko nekk doon bi nga nekkoon kenn ci candidat samp seen dënn ci présidentielle yu 2019 Rewmi Quotidien mooy Aïda Mbodj Aïda Mbodj Dakar Times ne ñu toll président Macky Sall sax bëggoon na bu ko jàppale ëllëg ci élection présidentielle yu 2019 bu gagné mu def ko premier ministre waaye li ni mel Aïda Mbodj mujj ko nangu njiital coalition Benno Bokk Yaakaar ci coalition Sénégal observateur xëy moom ci oto yi nga xam ni moom lay candidat di jëfandikoo ci ci suñuy koppar a rek nga ne kàlla moo taxit jëmi ko tey jënd course bi kay fi ñu toll nañu ko ngir fexe ba jiiti réewu Sénégal ñaar fukki fan ak ñeent ci weeru février 2019 stade yi ne kay xëy ci ndam lu yaatu xam ne lion soo yu am nañ ko niki dem ci kaw Mali gannaaw bu ñu leen dóoree ñaari bal ci dara moo taxit record kay ni lion soo yu Sénégal mematu nañu eggal Mali euh, wàllu lamb sunu lamb xëy ci combat bi naroon a dox ci diggante Siteu ak Ama Baldé yi ne kay bi ko niki démb waaye Rewmi Quotidien ak Vox Populi ci tiis ak i jafe-jafe la ñu ko dooree ndax li mandargal ne jafe-jafe dëgg-dëgg moo ci am ñàkkum ndox mi nga xam ne nemmee ko lañ ko ci gox yu bëri bëri niki démb ci dool bu ndakaaru juróom-ñaari doomu aadama ñàkk seen bakkan ci ab l'accident bu am niki démb ci ndakaaru ci Sicap Amitié moo tax Rewmi Quotidien jën campagne élection présidentielle door nañ ko niki démb waaye ci bëccëgu tiis ak i jafe-jafe la ñu ko dooree